Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna comme ni ma koy waxee rek saa bu ñu rek am na lu tax ñu jóg tey ñu ngi passé bu ñu passé na unité 1 bu ñu nee unité 1 ñëpp xam nañ ni benn cas bi nga xam ne jot na fi am mooy femme bi nga xamante ni yaay sa borom dogal na ni parcelle la dëkk Pikine nga doon nekk di fa daane dooleem yaay suñu borom dogal ni ñu jël fa bakkanam kenn taxawal ni nag moom nee na magam direct la ko léegi dañ koy bàyyi mu am tuuti loo xamante ni daf ñu koy mën a leeral ci biir kilifa gi ñu ngi lay ñu ngi delloo ziar bu baax. alhamdulilah baa yaa ngi am jàmm ñu ngi sant bu wér alhamdulilah. nga fàttali ñu tur bi. Cheikh Tidiane Gueye. Cheikh Tidiane Gueye. Mhm. Cheikh mën nga ñëw ñëwaat euh, tuuti ci cas bi nga xamante ni jot na fee am. waaw cas bi fi jot a am moom yaakaar naa ne lu war a am la ndax lu yàlla tuddul moom du antu donc yàllaa ko tudd mu am information bi ni ko nit ñi yëgee noonu lañ ko yëgee woo nañ ñu téléphone nu ñu agressé nañ seen rak ci bërëb sàngam ñu dem dem assister bi ñu eggee fekk ne xam ne ni ku ñu rey la loolu daal lañ ci jot am. Mhm. tey jii man kaa bi tey jii ni mu demee ba am tey jii nga ñëw fekk tey jii ñu rey ko tey gars yi nee nañ jàpp nañ ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko jëf ñu ne jàpp ñu ko est-ce que sa site jàpp nañ ñi nga xamante ni ñoom ñoo jëf. waa information bi ngeen ci am loolu laa ci am que ne jàpp nañ ki ko def loolu laa ci am dañ ne ñoom ñaa ñoo doon liggéey jàpp nañ ko loolu lañ ci wax. moo tax ki ko def góor la war a jigéen. waaw dañu ne góor la. dañu ne góor dañu ne góor la waa tey jii bu fekkee ni tey ji état bi jàpp na kooku noonu tey jii surtout mbala tamit suñu liggéey bi nga xamante ni mooy am na tën yi ñu ngi koy def tey jii liggéey bi nga xamante ni yéen yéen a ngi koy xaar ngir yoon def ko yéen lan ngeen xalaat ne yoon instant yi war na def li nga xamante ni mooy attaque ko waa xam nga loolu ce n'est pas à notre portée du suñu liggéey du suñu taxawaay ñun dafa am ñoo xam ne ñoo ñu fi nekkal parce que nu faisons partie de la population sénégalaise donc état am na lu mu war a def autorités yi am na lu ñu war a def concernant la justice dañu bàyyi justice def liggéeyam comme ni mu waree yàgg nañu am cas yu mel ni ci Sénégal yàgg nañ ko taxaw te yàgg nañ ci def li ci war waaw donc ñoom dinañ def seen liggéey comme ni mu waree. mais affaire yi kaay tamit xaw leen a jaaxal tuuti parce que lu ko tàmbal depuis cinq jours a ngi ne saa yoo xëy dégg ni diw rey na diw parce que euh, am na benn information boo xam ne jot na fi am na ko xam ne Maroc la nekk dafa mujjee jël jabaram rey ko maanaam yenn yi nga xamante ne instant yi nii nit ñu ngi koy jël di ko def ci rey yi est ce que loolu ngeen jàpp ni lan la ci jamono ji ñu toll nii waaw vraiment on peut pas savoir ñu mën a wax mooy manque de sécurité ci suñu dëkk xam nañ ne constaté nañ ko fi donc loolu euh, ñi ci war a taxaw ministère de l'intérieur ak ñi nga xam ne ñoom la làmboo yëpp dinañ ci def seen liggéey te am ci yaakaar donc ñun ñi nga xam ne bokk nañ ci dëkk bi lancé leen appel rek li ñu war a def ñu def seen matuwaay ndax doomu aadama war xëy di liggéey mënoo seen kër faaw nga xëy dem daani sa doole te it booy dem daani sa doole il faut nga jéem a xool noo def ba andi dara sa kër donc loolu mënul ñàkk donc nit ñi nga xam ñi ngi génn di dem di uti dara nañ jéemul kaaraanga goo xam ne dinañ ko teg si ñoom ba nga xam ne lépp daal ay matuwaay lay la doon ba sécurité am ci dëkk bi ba nit ñi constaté ne sécurité am na fi donc loolu kese la quoi li am nag wax dëgg yàlla gis nañu ne nit ñi à chaque fois mi ngi am xamuñu ban kaa xamuñu ban kaa vraiment peut-être lii daal nit ñi la peut-être nit ñi ñoo àndut ak lucidité peut-être lu ne mais mag ñi am lu ñu waxoon loo xam ne yaakaar naa ne dañul ndax Serigne Cheikh Tidiane si moo ko wax nañ jéem a xool réew mi defaraat ko sangaat ko parce que mën na ñëwee nu ne ne mun na dugg nit def loo ko loo xam ne après la ko rendre rendre compte donc yooyu yëpp am na mais nee naa paaka rayul pistolet rayu yàlla mooy ray bu ci yàlla àndul woon mën nañ ko def deux cent coups du dee donc yàllaa ci ànd te comme que yàlla ci yàlla la jóge woon fala la delluwaat ñu dellu sant yàlla loolu dong la alhamdulilah alhamdulilah kon kon a dégg kàddu yi nga xamante ne mooy kilifa gi nga xam ne moom mooy seet yaan li nga xamante ne jot na ko fee yëkkati comme que dañ leen di delluwaat tamit di leen euh, la nit tey ji ci beneen yoon la jaare bu bokkut ak ci beneen yoon am baax baax tam di leen gën a masawaat ñu bàyyi rek nga tàggatoo waaw nga dañu koy jaal àdduna ndax koo xam ne ñëpp a ko méttitlu dans le monde entier donc dañ koy jaal waa àdduna bi yëpp plus particulièrement nag waa kër Cheikh Seydi Hadji Malick ndax ci njabootam ci la am jëkkër ci la bokk ñu nit fa lañ bokk donc ñooñu lañ koy jaal di ko jaay àdduna bi yëpp di leen masawu coono ci yëpp dëgg yàlla métti na métti na ba fi métti jam mais sant yàlla li tax sant yàlla mooy lu mu métti métti métti bi couvrir na lépp ndax taxaw nañ ko taxaw bu am solo dañ ci ko tuwaawoon jébal ko suñu borom am ko li des mooy ñaan ñun ñëpp nañu doole di ko la soxla wax ju bari jeeg jëf jeeg yooyu yëpp amul solo li am solo mooy ñaan te ko dese ñu dool di ko ñaanal yàlla dool di ko yërmande cat bañ koo jiitu ci bàmmeelam bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf tey ji ki ñu seen mag ñoom ñëpp kilifa gi ñu ngi lay ziar waaw lay delloo ziar bu baax a baax baax a a baax sant yàlla bu wér a wér di leen nuyu la jox sa wàccuwaay di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu fu musulman mën a nekk rek ci àddina ngay sénégalais ngay jox loxo di la ziar bu baax a baax a baax tey jii cas bi nga xam ne tey jii jot na fee am tey jii ki nga xamante ni yow yaay magu kër gi tey jii natt bi tey jii ñëw tey jii dal seen kaw tey jii natt bi tey jii naka la demee. waaw natt bi man nag dama ko xaw a yéex a yëg ndax man maa ngi fi jógee vendredi bi ay vingt heures dem weekend Louga bi ma àggee tamit am na ñu ko yëg mais waxuñu ma ko ba dix heures lañ ma soog a wax buñ ma ko waxee tamit affaire mett na ma trop ci laa wañee ko waatee ñëwaat Dakar mu ñëwaatee Dakar tamit ñu wax ma information bi yëpp. mu doon lu ma metti trop ba ma wax ci dina xaw a jafe buñ sëñ Saliou Mbacke. xam nga ndeysaan ndeysaan ndeysaan àdduna ngi nii na ko dégg ndeysaan gis nga àdduna ngi nii euh, ndeysaan gis ngeen ko nii mu ngi nii sax di jooy te li nga xamante ne tey jii jot na ci am. waaye yéen a ko gis sànq dafa wax ba nit ñi sax ñoo ñu jot a tuuti masa sama xol sax dafa tooy xam nga rek moom mooy seen mag ñoom ñëpp xëy na xolam moo moo moo maanaam. xolam moo am foo xam ne jot na fa yegg tuuti ba tax mu jooy saa yi nii nag dafa toog ba si yàgg daal di bës xolam ne il faut que mu taxaw daal di jàllale message am mais teewul ba léegi rek rongañ bañ a tuuru dara bañ a tuuru. Mm-hmm. dañ la ko ñaan rek si jëmmi rasulullahi mm-hmm. nga wax ñu ci lu ndaw rek maanaam ba sa soxo rek nga yegg ñu tuuti rek li nga xam ne moom mooy message bi. waaw message bi ma ciy rek ci bi maa ngi ko jëmee tous les musulmans du mbokk kenn du nijaay du bàyyi képp ki musulman ci Sénégal yaa tax may wax lii nii dañ ko war arrêté mu jeex ñun famille Kiné Gaye man kenn sama ñëpp la yàlla xam nag moom bu jugoon tey dina tax ni ma perdre sama bis bi daa ci war a wax man maay moom mooy maay tey am na lu ma fi bàyyi loolu dinaa ko àggale incha allah ci kattanu yàlla mais di lancer message yi ci kanam Sénégal yëpp um benn musulman ñun soxla wuñu ko tëj ki ki rey ki ne gay benn weer soxla wuñu ko koo tëj dix ans soxla koo tëj ay at yu bëri soxla wuñu milliards soxla wuñu soxla ñu def ki ne gay faat ko Sénégal gépp xam ko état bi ñu jël fi ko ba Sénégal gépp xam ko bu ko faatul nag ñun dañ jël suñu décision bopp ñu toog di déglu ba xam yoon la dañ leen fa tëral soxla wuñ dara soxla wuñ tëj soxla wuñ dara mais ba état defee enquête am ba leen xam ne kii la ni mu ko def ba ñëpp xam ne kii moo faat ki na gay dañ ko def noonu lii mu yem fi sinon affaire bi day gën a bu buñ ci jógoon ñun daañu ci jóg muy xeex ak xeex loolu laa li may wax salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah yéen a ko dégg bés na xolam wax na li nga xamante ni moom la bëgg a wax duñ ko fasawaat ci leneen parce que xëy na am na fu xolam toll maanaam comme que tey moom wax na damay pare foofu am keneen koo xam ne tamit dinaa ko mën a jëli quelques images mën fee jugee parce que am na loo ne bu continuer rek suñ liggéey dina yàqu parce que dañ fay fekk meneen jikko fekk fi beneen melokaan boo xam ñëpp seen xel dafa tooy seen xol dafa fees comme maanaam am na loo tamit bugguma cee sori kon léegi daal ñu bàyyi la ak ñi nga xamante ni mooy peuple Sénégal parce que ñun Sénégal la ñu am Sénégal la ñuy tiitaroo kon tey bu kaa amee Sénégal kon tey ji dañuy taxaw di xaar état bi état bi def ci li nga xam ne moom mooy devoir am comme maanaam yow sa dernier message lan ngay taxaw wax ko peuple de Sénégal. waaw sama dernier message mooy état mooy Sénégal état mooy ñun état mënul dem len lu doomu aadama doomu aadama doomu aadama la yàllaa ko suturaal yàllaa ko jëmmal ku na ñàkk a fayda doomu aadama ci réew mi ñun ñun jóg ñu kooku jëm ñàkk ko fayda àdduna kenn duñ ko yàqal kenn duñu yàq àddina ñun li ma wax laay waxaat rek soxlawuñu dara loolu kii def lii na ko état jël def ko ni mu ko def wala ñun ñu xool suñu décision bopp tous les musulmans laa ci woo ci loolu maa ngi ci woo Sénégal gi yëpp bàyyiwuma kenn ñëpp laa ci woo asalaamaaleykum. papa ñu ngi lay siyaar bu baax a baax. ñu ngi lay delloo siyaar bi ñoo ngi sant yàlla di julli yonent bi sallallahu alayhi wa di xam ni ñàkk nañu monde ci ñàkk na Sénégal gi yëpp ñàkk na tariixa seexit ñàkk na ku ñu xam. ndax addunaam yëpp maam Abdou Aziz baax dafa xëy rek bëgg ko di ko jàng yaru am teggin respecté ku nekk ci kër gi ku nekk ci kër respecté na la ba sunu borom yàlla dogal ko waa Tiwaawan la am jëkkëram ma ngi tudd Habib Sy ca Tiwaawan kon loolu ñun loolu moom ci loolu la ñu jàpp nii moom la muñe daal loolu la ñuy muñe alhamdulilah tarixa cheikh gi nga xam ne dafa juddu nekk ci bëgg ko bëgg maam Abdou Aziz ci loolu la ñuy téye nii mu ne loolu dogal ni xam ne yàllaa ko jël xam ni yàllaa indi dogalam ci moom boo indee dogalam ci moom kenn mënu ci dara. tey jii moom soxna si ki nga xamante ni nee nañ mën na kon collègue am moom nga xamante ni moom moo ko faat ñu ne jàpp nañ ko ñu ne jàppuñ ko ñu ne moom la ñu ne du moom tey jii moom nga xamante ni njoxtu ngeen ni moom la tey jii lan ngeen ci li nga xamante ni yoon pour mu jëf ko ci diggante ak ki nga xamante ni moom mooy ki nga xam ne moom mooy raw na moom mooy raw ki rey ndaw si man de ci li nga xam ne si moom laa gis ci ni mu ko reyee rey rek man loolu laa gis man rey rek. tey jii est-ce que léegi jotul léegi nag Sénégal ñu indi léegi li nga xam ne moom mooy euh, loi bi nga xamante ne mooy ku rey nit te nga def ko nga xamante ne yaa ko tey état bi ñu jël la rey la benn yoon est-ce que yéen ngeen essayé ni pour kaas ci li nga xamante ne mooy état bi pour mu taxaw ci. koo xam ne si da nga rey nit ci rey ko ci sa coobare. rey ko ci ngir bëgg li mu yor wala rey ko ci ngir euh, nangu la mu yàlla sax a jëkk wax na nañ la rey ki ñu yilif ñun ñëpp muy yàlla nee na nañ la rey ba ñu ko waree def dafa yàgg ba ñu waree def ko rey fii ñu rey la ci reyu teeyug bakkan yi dafa yàgg tey jii semaine bii ni ñu génn juróom benn fan yi boobu ba léegi saa yoo xëy rek dégg ni béréb sànkam rey nañ fa kenn maanaam jamono ji ñu toll nii ci akul zaman bi ñu jot a nekk nii tey ngeen jàpp ni est-ce que yenn rey yi ànd naag ak ak neen daal gis naa ni day mën ci sama xalaatu bopp mooy ni ñuy reye ni yaakaar naa ñuy reye am na neneen lu ñuy jëfoo lu nekk nit kese rek nit ku raxul dara boo koy def yaakaar naa ni am na lu cay rax ci nit ki ba mu def ndax ndax li may dégg rey daa bare semaine bi dégg naa ñeenti gox yi ba démb ci ngoon dégg naa ñeenti gox yi bi ma tëddi nii ku ñu fa rey yéeme na lool lool lool yéeme na lool nga fàttali ñu ma magay gay magay gay waaw imaam magay gay imaam ñu ngi kontaan bu baax a baax parce que ñun lii rek la ñuy xaar ci mag ñi parce que yéen yéen ñi nga xamante ni yéen fi dëkk fii fi nga xamante ni moom mooy parcelle tey ji état bi lan ngeen di xaar ci moom tey ci état bi ci suñu mbir mii tey ji dal suñu kaw mooy waa ji ñu rey ko rek bu ma sañoon ci la ñuy commencé ci moom ku rey ñu rey la ci ni mu reyee parce que moom ñaari bakkan la jël waaw wax nañ loolu ñaari bakkan la jël waaw parce que femme bi nekkoon ci état waaw loolu de wax nañ ko kon maanaam moom fàttul benn bakkan ñaari bakkan la loolu de wax nañ ko waaye ñii fanaan moom ci kër gi suba ngoon ñooñu wax nañ loolu daal dégg naa loolu lu bare. maanaam daal ñaari bakkan daal la waaj waaw. kon maanaam daal li ngeen xam daal ci état bi mooy maanaam ku rey la moom lañ man daal loolu laa ànd man man. kon baax na léegi ñu bàyyi rek nga ñu tàggatoo parce que am na keneen koo xam ne tamit ñu jërëjëf ñoo ngi sant di gërëm di la ñaanal yàlla sutura ak yàlla may la métier bi nga nekk yàlla na nga ci am ndam. fi barakati rasulillah mooy fi nga xam ne moom mooy parcelle unité 1 fi nga xamante ni fan la fan la dëj bi am papa ñu ngi lay siyaar bu baax a baax. ñu ngi delloo siyaar bu baax. waaw di nuyu askan wi rek. di nuyu maanaam monde entier ndax kii suñu doom la bàyyi laa ci moom moom Mamadou gay mii papaam mooy suñu mag waaw mooy suñu mag ci kër gi tey ji waaw kon nag ah, suñu doom la waaye. metti nañu mais mettit wi ñu ngi koy sant ñi nga xam ni duñ ci dara te mu metti leen mettit woo xam ne si ñun sax àggul ci ñun ci noonu àddina yëpp la metti ndax ñaawaay bu defin mu ñaaw waaw ba tax na tey mën naa la ni àddina ñoo ñàkk ki ne gay mii suñ doom la mais àddinaa ko ñàkk àddina yëpp nag laa wax waaw ñu ngi mettitlu lii waaye ñu ngi mettitlu askan wi ndax seen cofeel ak seen teewaay ci Euh, affaire Kiné Gaye bii dafa métti ñëpp ñëpp ñëpp ba tax na loolu féexal na noonu waaw kon nag ah fa jëm yàlla na ko fa yàlla gàttandoog malaakam yërmande waaye ki ko def def na lu ñaaw lu ñaaw. léegi ki nga dem moom moo ko jëf jëf ju ñaaw moom mi nga xam moom moo rey moom tey jii lan la état war a xaar ci moom maanaam dañ ko war a rey wala lan lañ ko war a def. état bu doon dañuy àtte àtte islam ba léegi lii moom jeex na fi. bu doon ku dagg sa dagg loxo ñu dagg sa loxo ku rey ñu rey la ku def naka sa noonu ñu def la noonu kon wàññi ko na mais ku rey nit ñetti fan ñu denc la ñeenteel ba nga génn taxawaalu defi leneen te naa la xamal ni képp kuy rey nit rek xam nga ko koo xamul doo ko rey gis nga bandi yi ñuy wax ak ay agresseur ak yooyu xaalis lañ soxla dañuy jël seen xaalis dem seen yoon mais ki lay rey daa xam nga xam ko wóor ko ni bu la bàyyee nga feeñal ko loolu rek la kon nag dañoo war képp ku rey doom aadama te tey ko ñu rey la. loolu moo war a nekk. mais loolu ñu dagg sa loxo ku rey ñu rey la ku jam ñu jam la. mais léegi est-ce état bi léegi pare na léegi ngir jëfee signé contrat boo xamante ne ku rey ñu rey la. ah yi de bu fekkente ni islam moo atteewoo ci noonu. bu ko état bi nangoo d'accord nañ ci. waaw nag buñ ko nangoo te état bi nangoo ko duñ ci dara. kon léegi ñu bàyyi nga tàggatoo rek. xanaa di sant askan bi yëpp di leen xamal ni sunu doom la ñu ngi sant àddina yëpp di ko jaal àddina yëpp am cofeel ak kóolute ci doom aadama yi topp seen ginnaaw Lamine Gaye la bu salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah yéen a ko dégg noonu la kilifa gi tàggoo maanaam di leen sant di leen gërëm